Euh, ñoo ngi sant yàlla bu baax du julli ci Seydina Muhammad parce que taraanga ëppul lii boo dëkkee ci dëkk nekk ci réew mi njiite réew mi xam la ak njabootam ba lu muy def boole la ca loolu sànni Modou nag mën naa am leneen lu dul lii am na yar am na teggin fonk na ay mbokkam fonk na ñi ko yàlla booleel am na jom kon bii bii Marème fay sàll jël jox ko Moodu Moodu mën naa am leneen lu raw lii ëllëg parce que bu waxee ñëpp déglu ko te waxam nit mën na cee jàng nit mën na cee jàngale te nit bu dee saa bu yëkkatee kàddoom xam la ci kenn ku ne mën caa jàngaat loolu tubaarkàl la jëf mënu koo weesu kon ñoo ngi am kontante lool ku ko ñaanal kaala gii nag yàlla ko sa borom yàlla woyofal toll ci boppam ci bu ëllëgee yeneen ak yeneen topp ci moo baax na gore na am na jom bëgg na ay nawleem lu mu jëf boole leen vraiment xam naa ko ko mag waaye xaw ma ko ko kàddu yooyu rek laa am yu ma doon wax ci moom nit ku baax la jërëjëf li ci sama kàddu bu njëkk mooy dañuy sant yàlla julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi di ñaan ci yàlla yàlla mi nga xamante ni moo mën yàlla na yàlla nangu ak ajab moom Modou yàlla bàyyi ko ci kanamu njabootam bàyyi waajuram bu góor wee toog muy bàyyi Mor Diarra Diop ci kanamu njaboot gi mu yàgg leen a jiite moom tantaam jee toog di yaay may sa Diop di ñaanal aussi yàlla famille wu yàlla wéral seeni cër parce que nit lu mu mën rek mbokk yee ñoo ko ca jàppale ñoo ko ca bàyyi di ñaanal président Macky Sall mu yàgg ci bopp réew mi di ñaanal Marième Faye Sall mi nga xañte nii moom moo wëlbatiku gestu xool ginnaawam xool kanamam xam ni ñun ñoo fi nekk comme communicateur APR mu yëkkati Modou yóbbu ko Màkka def ko spécial. yóbbu ko ci VIP ya yóbbu ko Màkka dara manqué wul ñun dañuy ñaan yàlla président Macky Sall ak jabaram soxna Marème Faye Sall yàlla bàyyi ko fi gën a guddal fanam yàlla bàyyi ko ci pouvoir bi ñu bam deuxième mandat dès les premiers tours loolu la ñuy ñaan ci yàlla ñun ak képp ku nu bokkal yéene dii la wax ni Modou mën na am lu raw lii. mën na dem bay séddale ay bii ay màkka parce que nag lu mu am bokk nañ ko ak doomi aadama yi tey nag lekkul dara bàyyi ay mbokkam lekkul dara bàyyi ay xaritam lekkul dara bàyyi ay àndandoo lekkul dara bàyyi ay nawlem te loolu bu la ko yàlla defalee war ngaa mën a am lépp di santaat rek doolu ci gërëm di leen wax ni vraiment ñun dañu sant yàlla parce que waxoon nañu président de la république waroon nañu Marème Faye Sall ba daje ni ko Marème ñun dañoo parti bi nekkal président Macky Sall bëgg président di communiquer lépp luy communicateur APR ñu bokk ci di ci dox di ci wax di ci yëngutu waaye sunu sañoon vraiment nga yóbbul maa ko sunu sañoon nga jox ñu oto ñu nii mën a dawal sonn nañ ci dawal jakartaa yi nekk te wax ba nu waxoon ma dem dégg na ko déggaat na ko xam na li nu wax dégg na li wax mu yëkkati Modou yóbbu ko kon bu yóbboo Modou mel na ni ñun ñëpp la yóbbu lépp lu mu defal Modou mel na ni ñun ñëpp la ko defal parce que ñun ñëpp ñoo bokk président Macky Sall bokk Marème Faye Sall te amuñu lu ñuy rëccu parce que bañ ci duggee ba nga ni ci président Macky Sall dugg ci APR Bokk Yaakaar la gis avancement suñu bopp la ñu gis yokkute suñu bopp la gis wér suñu bopp la gis loo xamante ni fanu ne woon ak fanu yàlla boole noonu gisuñu ko woon fii nu yàlla boole ñu ngi ci gis suñu bopp di gis suñu bopp ci président Macky Sall xamal ne ñun ñoo ngi ci moom tey ba ëllëg suñu ànd bi yàlla ko yàlla yàggal yàlla bàyyi président Macky Sall may ko mu gagné dès le premier tour ñun loolu la ñu amoon ci lu ñuy wax yàlla bàyyi fi Modou ak ay mbokkam bàyyi fi suñu responsable politique yi nga xamante ñoom ñëpp su ma limee damay juum may gërëm plus particulièrement ki nga xam moom la ma yàlla booleel muy docteur Pa Amadou Diagne le PCA de Fongib ak jabaram soxna Madeleine Diagne lii laa amoon ci lu may wax di gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi ñu ngi nuyu kenn ku fi nekk sa tur ak sa sant di am contentement bu mag ci bisu tey jii euh, ku baax dag laaj laaj bu am solo waaye yaakaar naa tontoog yomb na ñun sax tànn ñu ñu ci doon jël kàddu ndax suñu kilifa ak Alaaji Alsaan ba mu waxee rek yóbbaale nañu rawatina bi naa waxee waaye dafa wax ni olof yi dañoo wax ni lépp lu doy loo ci am nar a mu mel ni li nga xamante ni bi Marème Faye Sall def na ko defal na ko askanu géwël yëpp defal na ko communicateur yëpp fekk na ah ay mbir ak yaakaar ak yi dég-dég jiitu woon ci alaaji Modou Ndiaye ñi nga xamante ni bëgg nañ ko yóbbu mu siyaar bu ñëwee ci biir ci dëkk ci Thiès ak fu dul Thiès bari lool waaye nag yàlla mi ngi ko jaarale ci loxol première dame bu baax bi nga xam ni mooy Marème Faye Sall mu baax mi nga xamante ni bii ba ma xoolee Modou. gis ni Modou Kat ku jàpp ci parti bi la ku jàppale président Macky Sall la nga xam ni Thiès gii Modou ji koy tortoor la yor ba mu weexee ba tey ñuulul ba mu ne président Macky Sall yow la ba léegi dara mënut a tax mu changé ko kon bu ñu ko teralee teral nañ cees gépp teral nañ bokkam yëpp waaye fekk na mu defal ko ku jubóo ki bokkam Alaaji Modou Ndiaye nit ku jubóog ay bokkam may faral di wax ni ku jubóog say bokk koo jubóol dëgg la ku jubóowul ak bokk. koo jubóol da koy nax mu den rek soxnaam su baax si nga xam ni ñoom ñaar ñoo doon ànd du luwe ñoom ñaar ñoo daan ànd di yëg ko wàcc ñoom ñaar ñoo ànd nag ba ko yàlla maye teraanga Moodu fàttewu ko kon tey bu jugee ci yonent bi tukki mi ngi yem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tukki ci yonent bi Moodu tey bu nekk di fekkoon mu jógee Espagne kenn du ko ganale bu jógee woon Suisse kenn du ko ganale bu jógee woon États-Unis kenn du ko ganale lan moo tax ñu koy ganale ah daa jógee nag ci ki nga xamante ne bii ku fa jógee wa foo jëm yaa fa gën foo jëm yaa fa man foo jëm yaa fa raw ndax gi jóge ci Seydina Muhammad yal na ko yàlla rappalal kaala gi yal na ko yàlla rappalal kaala gi yal na dund dund dund bay dem màkk téeméeri yoon yéen ñi nga xamante bii yéen ñaay waa Thiès Info ah kenn mënu leen a fay lu fi nëbbu woon feeñal ngeen ko lu fi làqu woon feeñal ngeen ko lu fi mat a leeral leeral ngeen ko ba leen xamee ba léegi ñun communicateurs yi gis nañu suñu bopp gis nañu suñu bopp président gis nañu ministre yi gis nañu député yi gis nañu chef de quartier yi gis nañu képp kuy nit ku baax giwoon na ngeen ñu du ngeen ñu dagg du ngeen ñu fulal da ngeen ñuy leeral ba leer nañ mun ñu leen a fay yal na yàlla fay leen bu taxawande foofu ba ca kanam wasalaamaaleykum rahmatullah di julli tamit ci Seydina Mouhamed mi nga xam ne mooy sangu sang yi xanaa am mbégte ak kontante ci li nga xam ne moo xew tey ndax dafa am lu olof Njaay wax lu am solo olof Njaay dafa wax ni pël ba xëy sàmmi nagam ndonga meew ma jomb ko tey Moodu bu jàppee parti bi di APR képp ko mere ci ko mere képp ku bëgg ci moom ci moom nga bëggee képp koo xam ci ko xamee kon ñooñ nag bu wëlbati koo sagal ko sag bu rëy gii jël ko yóbbu ko mu jàkkaarloog Seydina Muhammad ñëw jàkkaarloo ki mbokkam yaakaar naa loolu mbégte mënu ko weesu waaye dafa fekk ni nag tubaab ne rien n'est gênant pour ceux qui travaillent que la présence rien moom ci boppam xam na ne lii mu am tey moo ko moom ndax moo ko liggéey moo ko fi xaar moo ci sonn te képp lu waay sonn rek fay la Modou ku baax la ku yiw la ku am yërmande ku fonk ñëpp la man ba ma ñëwee ci lang gi fekk ko fi ak i nawleen ñu ngi njëkk a taseeg fu ñuy wax stade la Dior ci lamb ju Fallou Faye tëggoon le promoteur l'espoir ma yoroon micro central ba fa laa njëkk a gisante moom waaye bis boobu laa njëkk xam ci moom ak mbaax bis boobu laa njëkk a xam ci moom ngor bis boobu laa gën njëkk xam ci moom ak tabe ma topp ci ginnaawam nag bu may xelal di ma dooleel maa ngi seq nag lu bari loo xam ne xajul toog fii di ko wax coole na dina bari yenn saa yi ku ne dina wax waaye maa ngi moom seq nañ teraanga joo xam ne wallaahi laazim yàlla laa koy seedeel damay woo téléphone di mën ne meek ñuy joxe dara ci teraanga ma seq kaay jël sa wàll te yaakaar naa loolu yëg rek. moo koy fay maa ngi kontaan bu baax na sama xol moo fees moo tax du ma mën a sori yàlla ko yàlla defal cat kaala gi ci boppam yàlla ko rappal yàlla dellu màkk ay ati at bi jaay nabil Moustapha jërëjëf kontaan waaw ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci yonent bi di sang sant sant sant sant yi di sant bu baax sunu yaakaar yi àdduna ak alaxira Cheikh Bassirou Diagne Borom Touba waaw ma lay seereel lenn ci jëmm ji toog tey ku fi teew rek level show da nga koo fay si bor li muy def ci mbokkam la ko njëkk bu fekkoon ni nit ñi dañoo ñëw fii ay mbokkam toog fa leen croiser seeni loxo kon ku dem da ne ah nga neex na waaye alaaji Modou ay mbokkam dañoo toog croiser seeni i loxo waaye ay magam ñoo takk bu lax say ni ci waañ bi ay rakkam ay doomi baayam ay doomi ndayam te it euh, mooy muy koo xamante ni alalam boolewu ko kenn te lu mu la defal du ko waxtaane dama dama koy faral ni ko tey ji askan yi ku ci mën a waat saw ñaq amut ku mën a taxaw ni alaaji Moodu lekkuma ñaqam amut te mu muy ku am sutura ku muy ku am ngor ku am jom ku fonki bokkam nee naa ko bàyyi boo am dem na mag yaay joom dem na mag alaaji Mor Diallo Diop sa baay moo nekk fi doon xalifam njóobeen lu xew ko Cheikh Rassar moo moo taxaw kon Diop yow nii nga war a mel nii nga war a mel boo yéesoon yi dana nu jaaxal sa ndey fajar la naan jóge fii di muti lu mu am ba mu see añ baa ngi nii fekkewu ci dara yéen a ko mujje mujjee puso bu mu réer rek defoo leen ko ko defoon ñu jam leen may ñaan ci daraje yi yeneen bi kaala gi yàlla ràppe sa bopp te nga ràppal ko jóg ndax man de yaa ma tett ci lii ku mënul dara xamul dara nga téye ko def ko nii kon sant naa la baax jóg su ma ñemee mbooloo yow la su ma demee bay wax yowa waxeel nii defeel nii tey war naa mën a wax ndax doomi góoram bay war naa mën a wax waaye yaa ma xuusloo ni ma kaay dem may ñaan ci barkeb sunub sëriñ di ñaan ci barkeb borom jasaaka kaal ak yàlla ràpp jóob ku am jom nga ku am ngor nga ku foog sa bopp jërë ngeen jëf du nit ku baax la bon te dama bëgg aussi communicateur traditionnel yi nga xam ne ñoo ni Cees nañu roy ci moom Modou amul benn kole ki ñaam ku mel ni mook Cheikh Fall ak Nassau dañoo ànd rek te yàlla tax vraiment nit ku baax la. Euh, lu jiitu nag ñu ngi gërëm euh, soxma président bi nga xam ne moo ko yóbbu ci yonent bi ku la yóbbu ci yonent bi tudde la doom deseetu la dara ñoo ngi koy sant di ko gërëm di gërëm aussi euh, li mu def ñoo ngi koy rafetlu Omar nit ñi nit ñi nañu jàppalante. te yàlla tax xam nga équipe nationale mun naa dem wuti ndam bu ñëwee ñu gàttandu ko dem teeru ko génne drapeau national moo di bu jógee ci yonent bi li mu def lii rek la war a def ku jóge ci yonent bi lu la neex defal lu la neex ñu teral la yàlla def na aj bi yal na ko yàlla nangu aussi dafa am loo xam ne toujours maa ngi koy wax maanaam kees dara mënatul umpe kees tàgg kees info ngi kees loo bëgg président loo bëgg xam kees boo seetaanee Cees Info jarul ngay woo benn autorité politique fii loo bëgg a xam rek boo xoolee Cees Info di nga ko di nga xam ñu baax di nga xam ñu la mën a jàppale mais Modou moom lu mu am yaram man dipp dem ba léegi maa ngi fi Modou sama xarit la sama wëllëre la du def lu ma waxul moom naa mii ak Cheikh Fall dama bëgg aussi ñi nga xam ne dañoo nekk di politique nañu xam ne ñii la am ñii ñooy suñu communicateur bu dem jëli beneen communicateur feneen di ko teg ci seen kaw bu fi am ñii la am kenn dàqu leen a wax kenn dàqu leen a solu kenn gën leen a baax comme ni ko naa waxee ñii la ñu am nañ leen jàpp dañoo ñeme nit ñi kii heure boo demee yaa ngi koy fekk ci docteur Ndiaye ñoom di heure boo la ñëwee yaa ngi leen fekk ci mat leen kon ngeen war a xam ne nit ñu baax lañu et puis euh, ngeen ñu ñu ngi gërëm aussi Ablaye Dieye lu rafet dong lay wax yow Ablaye Dieye na nga ko bàyyi na ngeen ko bàyyi xel nit ku baax la man du ma jay non man du ma gis du ma jay kenn nee naa la dëkk bi tant que maa ngi dund kenn du ko yàq kenn du ko yàq mouvement yii dama leen a gëm lépp lu am Thiès ñooma mouvement yi ñoo ko def Ablaye Dieye mais nit ku baax la gàcce ngaalaama ñoom ñëpp ñoo leen di gërëm ñoom Marème si laa ñoom Marème Diop Sylla sama yaram day daw kii dafa jékki-jékki jóge Màkka rek dem seeti Marème Diop Sylla ak ñoom Babacar Pascal Ndiol ak ay Ndiop yëpp dañ koy laaj Ousseynou Diouf dafa toog rek mu may laaj mu ne ma ana mën a Modou dem na yaa xam li nga bëgg yàlla la ko yàlla defal mais yéen la ñuy waxal yéen politiciens yi nekk kenn na ngeen fonk suñu communicateurs yi madame fay sall wutal leen oto boo xam ne dañ naan auto communicateur la sond nañ ci jakarta yi kii judo bay ci la yaram muy mour njaay jóob moo fab ay kàddu sas ma ko pour ma delloo ko ci ay mbokkam di commencé ci masata ak andala ak abib ak badu ak Ndiou Thium. ak Ibrahima a ak Adji Ndiaye ak Adji Ndiaye Diop. ak ñépp rek nag ndax askan boo ci tuddee kenn tudd nga ñépp ca Moodu askanam la waxal. léegi nag bam yàlla julli ci Yonent bi mi ngi gërëmaale baayam bu baax El Hadj Mor Diarra Diop yar na leen. jàngal na leen teg na leen ci siraatal mustaqima di sant ndeyam ju baax ja nga xam ne nag bu sañoon lii fekk ko fi waaye yàlla na kenn mënta xëccoog moom mi koy ñaanal yàlla ko yàlla tàbbal ca barsàqu rasulullah mi ngi gërëm nag Ibrahima bu baax Ibrahima bëgg na ko. jàpp na ko fonk na ko Cheikh Ibrahima amul kaddu kaddu Moodu mooy kaddoom bu Moodu xasee wax Ibrahima jeexal na ci te nag tubaarkàlla am taraanga nangu nu yilif la goro ko man Ibrahima dafa foofu taraangaam ak lépp jox Moodu tubaarkàlla macha allah bi Moodu waree ñëw. dafa ànd ak sama doom ji dem tubaarkaal la jënd nag 400000 francs dikk ni ko bisu Moodu la ci ëpp maa ko war a def. ñu di foog ni foofu lay yem waaye loolu lépp taraanga la li gën a foor mooy nit ki nga xam ni. yàlla da koo taral mu am yar am teggin jox la boppam loo wax mu ni waaw loo waxul waxu ko ba am taraangaam nangu nga yilif ko loolu goro ko man Ibrahima yàlla na nga àgg ni yoon moo doon sant de mi ngi lay gërëm fonk nga ko faale nga ko bi mu déparé di dem pour yombalal ko danga ko ni lenn rek bëgg muy lan muy kaamiru alxuraan te nag yow tubaarkàlla macha allah ca daaray sëñ Mourtala ga ca nga génne sëñ Mourtala yaral la boppam di domi xaadim rasul ba pare ngay murit saadix ba pare mu tarbiya la tasxiye nga fa am yar am teggin li def ci yow foo toll loolu ngay jëfe kon tubaarkàlla Moodu nga lay sant mi ngi lay gërëm kaamil door bii ko di la ko jox. moo doo ko fab di la ko jox tubaarkàlla kii kaamil door la moo doon ko jëndee ma ko wecc koo ca Madinatu Munawwara ca bërëbu rasulullahi ba te nag taraanga nag tubaarkàlla ëppul lii tubaarkàlla waxi yàlla la bi ko ñaareel fa mu ko jëlee bi ko ak ki ko jox ya ko yeyo ya ko mérité jullit deug nga askor deug nga nit ko am yar nga nit ko am teggin nga alxuraan ngay ci ko ak kasaay ci seen Bamba yi ak fo nek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 di santaat di gërëm bu baax première dame premier ma Marème Faye Sall mi nga xamante ne teraanga ji ci moom la jóge di nuyu sama directeur général Omar Sey Lati mi nga xamante ni moo ni tey équipe bi yëpp na ñëw yendu si fii yow yàlla dogal ngay nit ku baax ñu bokk li ñu bokk di defandoo émission te dara ñaawul di sant it sama jur wi toog sama wet di alaaji Mor Jaara di ñaan yàlla na yàlla guddal fanam yàlla wéral ko ci darajay rasulillah kontaan naa trop tey sama xol sedd na ndax fa ñu jógee ku fa jógee lu dul sant yàlla waratu la ndax rasulillah kenn melul ni ma te ku fa àgg dem ci moom bi nga xam ne kenn melul ni moom ñuy euh, wax ki nga xamante ne moo ñu defal teranga yi dañ koy ñaan xéewal gi na baaw naan law ba ci communicateur yépp ndax am na communicateur yi si bari nañ te bëgg naa ñoom ñëpp siyaar ji Rasulaay ndax fa ma dem ku ne yéen naa la di sant sama mat yi nga xamante ne mooy El Hadj Cheikh Ramati nga xam ni tey sama conseiller la sama lépp la sama référence la di nit ku baax di nuyu nag responsable yi nga xamante ne ñoo nekk ci Thiès gépp ndax bi may dem màkk ñoom ñëpp ñoom ñëpp ma jàppale ñoom ñëpp ma jàppale di remercier Maodo Malick May le directeur général de l'ANAMO ci jàppale gi ma jàppale moom moo soññ sax Mariam ci biir bi nga xamante ne yegsi na ci man di remercier bu baax Abdoulaye ja directeur général bu poste di remercier Ablaye Dieye Babacar Fall sama yaay Mariam Diop Silla aji jaata bi fi jógee léegi jëkkëram daf ma teral ca Makka muy ki nga xamante ni mooy Matar Dia directeur bu Aspid Mamadou Thiaw di kontaan di gis waaye docteur Pape Amadou Ndiaye nag dama koo bere dama damaa ñëw ba ci barabu yonent bi di ko ñaanal di filmer sama bopp di remercier soxnaam leen Diagne ak taxawaayam bu rafet fàttewuma tabarkalla macha allah Mamadou Ngingue bu Itacom di remercier encore une fois le ministre Augustin Tine docteur Augustin di ko ñaanal di beral nag cant nag ki nga xamante ni biñ ko reconduire waatee bettu ma muy le ministre du commerce monsieur Alioune Sarr moom damaa sant ñu jógee Jobaas ñëw aj si waaye da leen a jàppale dimbali leen coiffé leen ba ñooñu di ko sant kon booy buy tasanteeg samay gërëm tombé ak ñoom bokkal wax ko loolu ku nekk seeday geeram kon monsieur le ministre Alioune Sarr maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm ak madame Seye mi assistante am dafa fekk ne ku leen jóom di remercier ki nga xamante ne barki démb laa dem jaale ko muy monsieur Momar Ciss le maire de. kër Moussa fekk naa ko biroom di ñaanal soxnaam bu baax yàlla ko yàlla xare àjjana Omar di remercier monsieur le maire Talla Diagne di remercier nag El Hadj Mor Gueye sopp nabi moom neewul rek dama bëgg yonent bi noppi dafa bëgg yonent bi gëm ko di ko doxal maa koy sant maa koy gërëm di remercier sama mag boo xamante ne mi ngi ba Congo waaye daf may woo téléphone ca Makka la fa doon woowee naan ma defal aj bii bii moo gën a kii ci yow muy alaaji may sa Diop di sama mag di remercier sama mag yi ma bokkal ki nga xamante ni mooy Masata di sunu mag après ko ci ànd la Ibrahima mi ma jox léegi kaamil door bi bàyyiwuma kenn maa ngi sant ñëpp bu baax a baax a baax a baax a baax di remercier nag journaliste su Thiès yëpp Babacar Ndaw Sud FM su ma ko tuddee di remercier waa rajo Dunia waaye nag di beral sant ak gërëm nag Serigne Diagne bu Dakar Actu di koo xam ni goroom maa ngi moom a nekkoon. mais Serigne lépp lu mu waroon def benn ñaar la koy def parce que gorom laa nekkaloon muy tonton Babacar Fall di santaat waa Thiès jëpp di remercier bu baax sama jigéen Aïcha Kébé bu alaaji Baye Gànna Kébé bi nga xamante ne alaaji juga kebe ko yar ñëw na fi def fi teraanga joo xam ne man Aïcha sax daf ma jaaxal di remercier waat encore une fois Ablaye Dieye ak kilifa diine yi fi nekk Serigne Khadim Gaydel borom ndaam Serigne Saliou ture ak nag seriñ Assane Gueye laay mi nga xamante ni xam naa ne ci kanam tuuti dina egsi ci jotaay bi di santaat mbokk yëpp di leen gërëm di leen xamal ne tey daal sama xol sedd na ndax lu rëy lu rëyee ni Seydina Mohamed nga ñëw ñu defalaat la lii loolu dara fay ko maa ngi santaat ñëpp di sant sama collègue yi may jàngaleen doon di leen ñaanal di sant sama soxna bu baax di ko ñaanal ak ki nga xamante ni nag mooy monsieur le maire Talla Sylla woo na ma sànq te xam naa ni jombul ni bu dee mi ngi fi dina yegg si bu fekkee génnul dëkk bi tabarkalla macha allah Omar daal santaat naa yëpp sant dëkkandoo yi nag sant dëkkandoo yi sant waa kër sëy Ndooy gi ma dëkk ak waa randu leen ndax man Modou waa kër sëy ak waa kër randu leen du ma mënumaa dem bàyyi kenn bàyyi daam Ndooy ak soxna Astu Ndooy maa ngi leen di sant bu baax a baax ku lim juum waaye sant naa bu baax a baax a baax Anta Thiam maa ngi koy sant di sant bàcc li taal mii mag ci kër gi ak Awa Dieng ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm. tabarkàlla macha allah di remercier sama benn mag boo xam ne nag bi moo ko taxawu toppatoo ko indi ko muy Koof Diop Baye Modou Diop di jëkkëru Abibatu Fall mais toog di leen sant bu baax kon sama xol sedd na Jili Diop nag maa ngi koy sant bu baax kontaan nañ ci yow baax Abdou Mbow honorable député Abdou Mbow yebal na fi Tafa Ahmed Saloum Dieng ci ñi fi njëkk a ñëw daanaka zam moo ko daj pour ñu commencé ko séddale maa ngi santaat ñëpp di gërëm ñëpp Mame Mbaye Guèye di ko gërëm Assou Guèye Ndiaye fàttewuma ko umu Ndiaye ak ki nga xamante ne mooy may a Sène ñoom ñëpp ak nag madame Seyna bu Ndiégeen mu may woo léegi xam naa léegi mu yegg si ci jotaay bi tabarkalla macha allah ak nag. ministre bi nga xamante ni mooy Ramatoulaye Gueye Diop di ko sant ak soxna Mariama Sarr mi nga xamante ni Cheikh Fall la ñu booleeg moom ak Ajaratu Ndeye Sali Diop mi nga xamante ni Adja Ndeye Tické Ndiaye nag maa ngi koy ñaanal yàlla na nomination wàcc ci moom ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm aéroport la ma woowe yabal ma chauffeur ni ma li ma la bëgg a jox faaw nga yóbbante yóbbaale ko kon maa ngi santaat ñëpp bu baax a baax di remercier madame Mané jabaru